Xaadir maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, am mbégte lool ci dara laat leen di leen sant si liggéey bi ngeen def. Mm. alors xam naa nag fi ñu koy euh, dooree tey euh, moo di kàddu yi nga xam ni Serigne Mountakha Bassirou daal dina ko yëkkati gannaaw violent manifestation yi nga xam ne daal di fay am barki Dembo Ndiaye Touba Mbacké ba yu bëri ñu taal ko loolu itam am na ñenn ñoo xam ni ci ay ndaw lañ fo dëkk foofee ca Touba ba tax Serigne bi yëkkati ay kàddu. Euh, kaddu yoo xam ne itam fooguwu ñoon den naqaral noonu sëriñ sëriñ Muntaxa Basiru euh, en tant que surtout sëriñ Touba itam dëkk foofa ci Touba nekk itam koo xam ni yàgg naa dox euh, am nga doc am nga doctorat sax ci li ñuy wax lu jëm ci wàllum sécurité nationale ak internationale mhm. ban jàngat ngay def ci kaddu yi nga xam ne sëriñ Muntaxa yëkkati na ko surtout sëriñ Touba avant saa en tant que talibé sëriñ Touba mhm. en tant que ku dëkk ca dëkk ba mhm. man ak sama baay ak sama maam man ak sama yaay ak sama maam dëkk ba kon Touba lan dëkk mu metti ma lool ci ñàkk yar ak ñàkk ma nga xam ne xale ya fa nekk def nañ ko te ñoom ña fa nekk ñëpp seen bàyyi ñëwoon fekk si sëñ Touba wala seen i maam jóge woon fañ dëkk ñoom fekk si sëñ ñoom juddoo fa kon ñoom bu ñuy wormaal sëñ Touba ñoo ci war a njëkk bu ñuy wekk sëñ Touba ñoo ci war a njëkk kon suñ demee bay jooyloo xalif bi man maay sant yàlla ba loolu fekkuma fa mm-hmm. donc maa ngi woo l'état du Sénégal di woo it Baay Faal yi ñu def ci la ca war parce que loolu moom dañ ce war def la ca war parce que loolu waratul demee noonu mm-hmm. waaw xotti war ma Serigne Touba moom ci biir kër Serigne Touba loolu war a nekk mm-hmm. loolu ko def au nom de quoi qu'il en soit kooku loo ci mën a tudd lu war a mën a tax reewande googu moom c'est inimaginable nit wur ko mën a xalaat ko moom dañ ci war a jël li ma wax leer na mooy kon ci jàpp ku ma ci woo dinaa la wax lu bon ñaa mm-hmm. ku man a doon loo mën a doon ci man buñ la jàppee ci manifestation Touba sa affaire la waaw parce que Touba ma la gënal sëñ Touba ma la gënal ku mën a xotti war may sëñ Touba moom da nga jëm feneen fu ci man kon te yaakaar naa position ba nekk la ci ñëpp nekk lu ñaaw la lu bon la ay complexe la ñu complexe mooy jeune nga dégg nga ne ñu ngi def leneen feneen nga defe ne c'est valable Touba manque de discernement boobu manque de de de boobu malheureusement dafa xew fi ñu bëri jeunes yi nga xam ne seen école mooy Facebook ci la ñuy jàngee liñ gis lañ defe ne mooy dëgg ci Facebook ils sont tous victimes de manipulation waaye nag Sëriñ Tuubaa moom ku ko ku ku rep te bëgg a torox rek yaay ci moom benn comportement politique ak kuy politique ak koo ca mën a doon ak loo ca mën a doon Sëriñ Tuubaa d'abord mm-hmm. kuy politique ak koo mën a doon ak loo ca mën a doon man sëñ Touba ba noppi. koo gëm rek ma dëkk sëñ Touba ku gëmul na nga dem ci àll ba Touba dëkkub jàmbur la Touba kër jàmbur la. principe bi ko sëñ Touba sante woon rapport d' élection. comprendre nga sëñ li mu ko waxoon mooy wa daara sunnatin wa xilaas wa wara wa siddiq. wa mat la ban di taanti rahim. wa mëhëra ban mi taanti rajim lii la ko sëñ Touba sante woon mooy fu ñuy jaamu yàlla kese kese kese nii leneen. ci jaamu yàlla boobu nag ku ci bëgg a dugal politique. ñu naan ay bëgg sa réew dama ne. Mhm. ba ñu wax bëgg sa réew bu ko def politique machiavélique bi ñu def fii Sénégal. Mhm. nga xam ne si acteur yi ko incarné. Mhm. su leen neexee dajaloo dil gisee waxtaan. bu leen neexee genn xeex taal dëkk bi am ñu dee loolu mat nay bàyyi xel. kon ku ne ci loolu nekk dañ la war a yar. mais naka nga gisee ak ci di opposition bi bu ñu demee ba coow am ñu commencé naan kilifa yi dañu dañu war a wax. Ah, dem sax bay am ay kàddu yu ñagas suñ ko. wax wax yu bon la rek mais bu ñuy dil bu ñu ci dugal sëriñ bi. Hmm. acteur politique yi opposition. Hmm. comme pouvoir bu ñuy dil. Hmm. da dégg dë maanaam est ce que dañu dégg si turu sëñ mais bu ñuy juboo da xëy ñu ne way diw gis naag diw dinañ yóbbu loo am ne si pour baal diw baal diw. bu ñuy dil seen i intérêt personnel sa yoonu sëñ bi néew mais bu ñu lakkee dëkk bi ñii dee ñële dee léegi ñu de sëñ si responsable suñoo waxul ñoon mm-hmm. dañu jabaate dañu réew rek mais loolu mënul changé ci doxilu sëñ bi dara. Mhm. mooy mooy li xalaatkat benn xalaatkat africain bu mag dafa waxoon ni euh, ñoom politiciens yi bu ñuy def seen accord bu juboo seen biir kenn du ko fekke waaye bu ñu amee divergence rek. dugal ci peuple bi jëmul fenn jógul fenn ñi xam ne euh, xam ne politiciens yi gën a liggéey seen yaay yaay politiciens yi gën a liggéey seen yaay ñoom ñoom ñu nangoo deel politiciens c'est mhm. simple que ça donte nag parfois défendre sa réew na ci xeex mën na ci dee mën na ci def lépp mais am na yoo xam ne boo jógalee sa bopp boo ñàkkee sa bakkan sa affaire la tey bu ñu defee am na si nii tey ñi deewoon fan lañ jëm bu ñu defee am na si mois de mars ñi deewoon fan lañ jëm loolu dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw manifestation yi li xewoon Touba xew ci biir Sénégal mi ngi am gannaaw décret présidentiel bu président Macky Sall daal di jël ne dafay reporter élection yi parce que euh, euh, jamono ji ñu toll nekkul jamono joo xam ne mën nañ fi tenir ay élection euh, est-ce que njort nga ni li ñu wax naan crise institutionnelle ñëw naa fi benn conférence de presse yow tamit man maa ngi koy fàttali yow yaa jiite euh, SIFAR mu di euh, kuréel gi nga xam ne moo ëmb wëy euh, kilifa diine yi nga xam ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew nga alerté woon xam na gisoon nga ni mm. président Macky Sall mu ngi ci yoonu li nga xam ne tuxal élection yi est-ce que jàpp nga tey ji nekk nañ ci crise institutionnelle boo xam ne jar na ñu tuxal élection yi vraiment non pour dire vrai non gëwuma ko man sëñ Mor Bousso sauf si xëy na président Macky Sall xam na ci lu ma ci xamul lu mu waxee neneen peut-être ça j'écarte pas cela que xëy na xam na lu ma xamul loo xam ne moom neneen la ko waxee parce que dëgg na ko ci misaal la mu évoqué éventuelle force qui doivent occuper le pouvoir éventuellement su politiciens yi mu ñu daje ci dara loolu ju ñu la boo xam ne am na lu ma ci xalaat am na lu ma ci xam na lu ma ci xalaat am na ma ci xam mais taxul dara valable nag ci rapport des élections kooku moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg mhm. mais une fois rapporté na ko aussi jàll na mhm. bu ne rapporté na ko rek léegi kon li ci des nañ lakk dëkk bi loolu baaxul tamit mhm. soo baa ñun ñëpp ñooy perte na ko déjà ba pare Macky Sall ne peut ne peut plus perdant parce que moom pare na ci kon ñi ma ko dugg seen ko ëllëg su yëf yi yàqoo ñoom ñooy nekk perdant yi mooy ñun nii ñëpp classe politique bi de manière générale. kon d' nga ci dialogue bi nga xam ne président mi ngi koy woote. ñu toog waxtaan d' accord naa ci dialogue bi noonu man xëy na du sëñ Mor dem ma jot boobu. Hmm. mais su ma ci mënee dem mën naa ci dem su ma ci mënul dem mun naa cautionner esprit bi. Hmm. parce que dialogue toujours baax na. Hmm. surtout dialogue boo xam ne da ngay dialoguer kenn ngir mu dem. comprendre nga. ça veut dire que dialogue bi du dialogue pour dialoguer politiquement ou post au deal. dialogue bi mooy apaisement. mooy buñ taal buñ lakk buñ toj neuf mois yi mën na bañ a changer ci vie quotidienne des sénégalais lambda dara bu fàtte nag sénégalais lambda yi ñoo am solo mooy yow muy man muy keneen te bu manifestation bu manifestation amul woon doon nañu am internet te amuñu internet ainsi de suite donc mais teewul xëy nga sa kër ci jàmm di nga fa delluwaat ci jàmm loolu mooy vie des citoyens lambda loolu moo ëpp solo ci nation su fekkee ne loolu changé wul neuf mois yi ñuy toog xaar mu organiser élection te dem te mu wér ku nag day dem ñëpp xam ne day dem y a aucun souci Sénégal moo ëpp solo loolu parce que bu ñuy wax constitution bu ñuy wax droit en question en tant que tel la substance du droit c'est la solution sociale su fekkee ne dafa dem bëgg a renverser solution sociale bi nag il faut que ñu chercher solution sociale pour apaisement loolu rek nag ci logique boobu rek laa mën d' accord mm-hmm. bu dul loolu mënuma d' accord jamais ci rapport des itam mi ngi am ci juge yoo xam euh, bi nga xam ni ak Cheikh Tidiane Coulibaly bi ñu euh, itam mu di wàllu féete ci wàllu PDS di Karim Wade moom itam dafa demandé à ce ñu reporter élection yi parce que accusation yi lourd na jëm ci conseil constitutionnel demoon sax bay laaj à ce que ñu ñu ñu am ab dissolution du conseil constitutionnel ñi jàpp ni dil la ñenn jàpp ni Macky Sall candidat moo pareegul yow lan moo ci sa position. bon disons y a tout Macky Sall candidat parewul effectivement dëgg la. Amadou Ba Amadou Ba parewul Amadou Ba man sondage ma yëpp treize quatorze pour cent lay varié. Mhm. pour cent. maximum ci candidat du pouvoir ce n'est pas normal. Mhm. loolu nag parce que dama koy fàttaliwaat Macky Sall c'est un politique. pourquoi may wax ci ñoom sama yoon nekku ci ñoom. Mhm. mais après que ñoom ñu yor pouvoir bi tey seen vie mën a am reflet ci nation bi parce que seen problème yooyu tey feeñ na ci. feeñ na ci dox doxinu réew mi. kon su ma doon Macky Sall ma jël ku ñëpp ne waaw mais pas Amadou Ba Amadou Ba Macky Sall xam ne na fait pas consensus Amadou Ba ko Macky Sall tigee ñi ëpp nanguwuñu woon ñenn ñi génn nañ ñi génnul te ñoo moom moo ëpp Macky Sall xam na ko. Mhm. kon je pense ko bu ciy delluwaat dina xalaatal kan lay teg. mais est-ce que nekku ni loolu keroog ci conseil na confiance am ci Amadou Ba. choix est-ce que le choix légitime. non non non légitime légitime mooy le choix de la majorité c'est ça qui est légitime mais choix boo xam ne si du choix majoritaire kooku moom légitime su doon Mouhamed Boun peut-être oui parce que Macky xam na ne président Macky xam na ne ci biir coalition ci biir parti moo fa ëpp légitimité ci Amadou Ba. moom lañ gën reconnaître ci Amadou Ba. Hmm. tey xëy na bu doon mooma kon mouvement yi yëpp du ci am. Hmm. kon rébellion intérieure bi yëpp du ci am. comme xëy na popularité Amadou Ba ni mu ñàkkee Amadou Ba jël ko tey nga tegoon ko Touba mu sol benn xaftaan rek romb ci mbedd mi ñu la kii kan la. fem doon na Amadou Ba la. <laughs> bien vrai que am na ko toogoon ak président ak Amadou Ba naan ko boo demee yóbbante yaa la yóbbante ci. Amadou Ba te pourtant lee mu def deux ans primature. Hmm. léegi mu def deux ans bi matul. bien avant loolu nekkoon na ministre des affaires étrangères yàgg na ci nekkoon na ministre de l'économie des mmh. mmh. mais politiquement néant presque. donc xasuma ko nag ah. Mmh. damay analyser donc kon bu Abdoulaye Dione bi nga xam ne religieux yëpp yi ci ëpp accepté nañ ko. def na primature de cinq ans. xam nañ ko du mu nekk mbokku taalibe murid moo tax koy défendre mm-hmm. Mm-hmm. parce que am na communauté yëpp mm-hmm. donc yaakaar naa ci ñoom moo gën légitime yaakaar naa ci ñoom moo gën a bénéfique pour faire face te fi Sénégal toll man mi jàng sécurité wax nga ko léegi euh, xam naa ne les prochains défis défis sécuritaires lay doon ku nekkatul jeune jeune jeune bu fuga moo fi baax ku dal ku calme koo xam ne am na expérience rek moo fi mën nekk. mais jeune fougue boo xam ne day dóor di damm di def nii kooku gaw ma ne solution la mais mais deal bi ñu njort nii diggante euh, Karim Wade la ak président ak Sall ba ku jëg politique di ko contesté nag. bon Karim Wade c'est mon ami j'évite de le attaquer mais en tout cas sa candidature ne vaut pas le rapport des élections wax naa ko fu ne. candidature Karim Wade jamais parce que contestation qu'au niveau conseil constitutionnel euh, contestation. c'est valable. Mm-hmm. mais mais d'où synonyme mu rapport rapporter les élections. Mm-hmm. bi ngi mel ne euh, exemple dans un match arbitre bi dans une compétition. Mm-hmm. ci benn match arbitre bi comme arbitre Sénégal. Euh, Côte d'Ivoire ku gagné Sénégal sax man du d'Ivoire Sénégal d'Ivoire. Côte d'Ivoire l'arbitre a été sanctionné. mais la mais la compétition n'a pas été rapportée ni reprendre. Ah, ni repris. kon donc compétition. donc euh, décision bi conseil constitutionnel jëloon. dañ a euh, non décision boobu constitution moo moo moo protéger conseil constitutionnel. Mm-hmm. parce que mooy dernière juridiction constitutionnelle dans ce pays. nii cour suprême cour suprême est la plus grande euh, juridiction. Mm-hmm. mais en matière constitutionnelle. Mm-hmm. c'est le conseil constitutionnel qui est supérieur. donc conseil constitutionnel boobu mënul constitution daf ko protéger ne sa décision ne pas être contestée. n'est pas susceptible d'une voie de recours. Mmh. donc dans ce cas précis euh, mënoo ñëwaat ne da ngay recourir parce que tel monsieur am na double nationalité tel monsieur am na double nationalité Karim Wade bokkul s'il y a corruption la corruption concerne des personnes. Mmh. donc wax naa fu ne la la la responsabilité pénale est individuelle. soo baa ñooñu la ñuy seeti. Mm-hmm. mais du de compétition bi dara. kooku leer na wax na ko fu nekk. d' accord d' accord mais itam am nañu jàpp ni euh, sondage yi était favorable ci camp euh, Bassirou fay Faye euh, gis nañ popularité bi mu am bi Ousmane Sonko amoon sympathie populaire bi itam dafa mel dafa wuyu woon ki nga xam ne moo di Diomaye Faye ñooñu itam jàppoon na ni peut-être ragal gu ñu ragal Diomaye Faye comme ni ñu waxee jugee ci kaso bi dugg ci palais bi moo taxoon itam bokk na ci lam ñu reporté élection yi. waaw xam nga su fekkee ne Diomaye Faye mi nga xam ne géré gul luñ fi xamee compétence am. Mm-hmm. Diomaye Faye géré gu fi administrativement sur le plan étatique lu tax ñu naan résultat bu mu fi def pour ñu wateel ko ama loolu leer na kon Diomaye Faye nit ñi xamuñu ko sax bu baax dañ ko xam mooy xam nañ ko ci Sonko derrière Sonko su fekkee ne Diomaye Faye boobu nit ñi bëgg nañ ko préféré deux causes rek ñoo ko waral benn mooy l'impopularité du candidat du pouvoir ma wax ba Diomaye Faye mën ko emporter très rapidement mm-hmm. bi toppaat mooy contestation bi moom fort mm-hmm. contestation bi toujours mm-hmm. mooy prendre dessus toujours ci pouvoir bi nit ñi duñu duñu fal xamuñu koy Diomaye Faye sax mosuñu ko gis presque euh, li li ma waxoon benn jour sénégalais mënul fal mais folli leen kon mooy koo fi mën a teg nañ ko folli parce que Sonko la woon xam nga pourquoi Diomaye Faye parce que Sonko est retenu buñ bàyyi woon Sonko Sonko lay doon. Mhm. bu ñu bàyyee Diomaye Faye Diomaye Faye doon. Mhm. bi mu fi jëloo Sonko Diomaye Faye. Mhm. def ko. Cheikh Tidiane Dièye non non moo jëloon Abdou Khadir Mboup. moom lay doon parce que contestation bi la. donc loolu la la la politiquement le pouvoir bi war a revoir. ban alternative ak ban challenge. la mën a def face à situation. parce que bu dul loolu tamit nous allons vers des élections que la même situation se euh, se kan lay doon. parce que bu ñu tegaatee ku mel ne Amadou Ba. Mhm. keneen ku fa nekkaat. effectivement budul Diomaye Faye di beneen nit. Mhm. jàppal Diomaye Faye éliminer éliminer Sonko éliminer ku la neex. Mhm. mais nit boo teg. kooku la ñuy wëtal il faut changer cause bi. d'accord euh, gis nañ aussi ci fan yi Alioune ak euh, euh, Pierre Goudiaby Atepa ñu ngi dox ab médiation diggante le président Macky Sall ak Ousmane.